Ça va Ça va bien. Comment tu vas Ça va Ça va bien. Ça va. Ça va bien. Ça va bien. Massa coono. Macha Allah. Ça va. waaw waaw. jaaraa ngi noonu. Genau, verwenden. Pepe? Eh, dëgg la dëgg la

non lakk boobu. mooy mooy C'est mon signataire. Ibrahima Ibrahima fa ne. moom loo xam moo fi newoon xale yi. waaw vraiment expliqué quoi moom moo fi newoon lakk bi. mais nañ ñëw man bi le bâtiment là n'est pas bon nañ dem taxaw salaam salaam salaam waaw maa ngi maa ngi sant uh, yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam uh, di am toujours uh, mbégte ak émotion su ma ñëwee ci fii ma yaroo di HLM Abdourahmane Diaw di suñu mag di aujourd'hui piloter ce grand projet politique bi ñu am pour 2024 di sama directeur de cabinet wax ma li xew fii ci HLM te nga xam ne HLM daf ko ñor lool nag ci wàllu lii ñu def ci Sénégal ñu bàyyi suñu activité yëpp tey ji ñëw ànd ak ñi nga xamante ne nattu bi dafa dal seen kaw xool xoolaale dégâts yi fi am di sant yàlla nag ba nga xamante ne nit euh, gaañu fi gaañu yu metti yooyu wala mu am perte humaine euh, ànd ak ñoom ci naxar bi nar ci aussi incha allahu taala bi ñu waxtaanee ak tout le cabinet de la coalition jàmmi réew mi organisé wu pour ànd ak ñi fi dëkkoon jéem a xool ni ñu def ensemble autour d'une chaîne de solidarité boo xamante ne ñi dëkkee HLM tàmbali nañ ko ba noppi wax nañ ma ko ndax ñoom maam bi ak ñi nekk ci biir groupe WhatsApp boobu seen taxawaay yëpp mooy ku am coono fii ci HLM ñu jàppale la donc loolu dañ ciy tàbbi te dañ daf ñuy neex lool ñu ñëw euh, bokk ca loolu mais leneen li nga xamante nag moo ñu ñoraale encore te ñu bëgg réaliser ko dans nos projet projets en mille vingt quatre bokk na ci euh, bépp bâtiment ci réew mi boo xamante ne gis nañu ne mën na mi ngi nëx saay wala taxawaay ba ca waroon am. sur le plan architectural gis nañu ne léegi bâtiment bi laaj na ñu daaneel leen indiwaat lu bees ngir jàmmi ñu ko dëkkee loolu mu ngi ci biir projet bi te bu HLM rek jàpp na HLM jàpp na yeneen gox ci biir réew mi jàpp na Médina parce que doomu aadama war na su lekkee bu baax faju war na dëkkuwaayam aussi mu am fa tranquillité loolu bokk na ci ay projet yoo xamante ne taxawal nañu ko ci biir coalition jàmmi réew mi suñu amee réew mi en euh, deux mille vingt quatre incha allah taala barakallah barakallah scanner connaître xool topp yàlla connaître générosité connaître dëgg connaître sa dëgg yi yëpp dañ la defal doom ji ndax ñu doy ak si wàll fii jaale wàll la jaale wàll la jaale wàll la discrétion ak yaram ñëpp a nekk. parce que biñ kàccelee ba nekk mag ba am ko kër kenn mësul a géew te mësul a tudd ci lu nekk sa noonu ba dégg la ci wàllu diine ci lu ci am ak ci wàllu politique tam parce que lu may faral di wax politiciens yi ak imaam ñoo ñàkk bañ Euh, ci projet ndax kii bu fekkee ne diine moom a tax a jóg te yaa koy def ci fi nga xam ni euh, dëkk bi te dëkk bi dafa nekk ci ay loxo kuy ñu mën a ne dafa bëgg ñu jox ma dëkk bi pour ñu liggéey mënoo ñàkk bañ a collaborer ak moom parce que ki nga xam ne dem na ba am sañ-sañ ne tey tëj leen jàkkee ak jumaa yi doo leen julli ci Covid bi kon kooku boo ne dama koy ignorer da nga gàtt xel donc le temporel et le spirituel ils toujours ensemble parce que fu ngay jaamoo sa borom am na ci ay loxo yu mu nekk état lay doon ñetee autorité kon ñooñu war nga lépp lu ñuy def nga bàyyi ci xel di leen sóor di leen bàyyi xel ku jóg nag ne dama bëgg ñu jox ma réew mi pour ma liggéeyee Sénégal mu jëm kanam kooku noo ko bañ a ignoré moo tax ba ma ne Alassane Cheikh Alassane mooy ñëw banaa kooku de suñu frère la papam euh, sama kóllëre papa la mm. fu ma tasee sa papa yàlla mooy sama sëriñ dina jël cinq minutes doox ak man naan imaam ndaw imaam ndaw dugg euh, kon ñu ñaan yàlla rek li nga xam ni moom ngay ut yàlla mi nga xam ne mooy borom lépp lu nekkoon ak ku ne di dogal lépp lu nekkoon ne ci ku yàlla bu ci yàlla tasee persévérance rek euh, ku mel ni Ablaye Wade jox na leen exemple ba muy politique boobu ñu bëri judduwuñu mu dem ba yàlla teg loxo mi ci réew anglais you can get if you really want mm-hmm. nga bëgg the only way is to try mm-hmm. try and try mm-hmm. bon ancienne chanson l'heure du temps voilà voilà kon nit ki lu nga bëgg dëgg danga koy gëm jox ko xàqam ci sa xalaat daf ci sa xel daf ci sa doole lu koy mottali nag mooy audace parce que il faut audacieux pour nga ñëw taxaw ne dama bëgg nekk président de la république wala moo nekk député wala maire c' pas donné à la portée de tout soo yeew dana ma génne ma génnee fii jusqu'à un digolo kon audace moo mën a doxal réew audace moo mën a tax nga accéder fu nga bugg a jëm mais ku ragal ni ñu ko doon waxee ragal du jëm buy kon da koy gëm rek jox ko xaqam ànd ak nit ñi di sàmm li ngay wax ak li ngay diggaate parce que léegi réseaux sociaux yi tax na lu gën ñuy wax vaar kon lépp cheikh bi looy wax réfléchir ko du déglu nag say conseil sallallahu alayhi wa sallam bu aaye wàccaan waxu yàlla la du ko changé mais nu mu koy waxee nu muy abordé nit ñi ak fu mu ko war a waxee da daan am ay conseil ci waxtaan kon ñu ngi ñaan yàlla daal li ngay dox yàlla la ci yàlla defal ndam muñ nag ak liggéey mooy tax nit ki am lu nekk boo ci amulee lu nekk sax di nga ci am notoriété et cela est important di ci am ay xamee di nga ci xam ay kilifa di nga ci xam lu bëri bu defee nag jar na ko waaw ngeen bal ma ak wax ju bëri ñoo bokk dañoo bokk bàyyi kër quoi parce que ça fait presque quarante neuf ans di dem ci cinquante ans si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam di di am mbégte ni ma ko waxee léegi rek saa yu ma tàbbee biir HLM gis ñi ma màggandool gis la yéen suñu ay mag dañuy am émotion bu mag rawatina nag yow sa taxawaay maanaam alquran sax moo ko wax si si maahum fi wujuhihim min asari sujud sa comportement ci biir HLM nii nga mel nii nii la ñu la xame woon ba suñ jon yàlla tey wax dëgg yàlla yàlla dëgg la bëgg nga nga lewet ba pare amoon courtoisie ak nit ñi du ma fàtte mukk euh, li ma jàng école primaire yëpp euh, kiis bi ma daan naan sa waajur moo ko moo moo moo ko jëloon di ma ko jox te maa ko daan jëlil sama bopp. Mhm. ndeysaan mu bëggoon ma lool aussi. Mhm, ndax sama kóllëre bi amoon sama diggante papa ak sa waajur. Mhm. waaw sa waajur bëggoon ko lool aussi. Ah, amoon taxawaay te cofeel gi moo amoon ci moom. moom la amoon ci ñi dëkkee ci HLM yëpp. yal yàlla yokk leer fi mu taxawaay bii nga am aussi mu nekk un euh, nekk sa loxo te nga koy doxal nag ba ñëpp. nangu imaam sax euh, li lay li la yàlla li yàlla def ci yow moo doy waar hmm. c'est rare di gis nit ku màggee ci benn kon jiite fa hmm. c'est très rare imaam yi nga gis ñu bëri euh, di jiite ci ay gox màggee bu ñu fa hmm. donc loolu dafay wax lu rëy rëy ci yow sa taxawaay ci biir HLM bi ñu ñëw nag ci weer bu tedd bi weeru weeru rajab léegi rek euh, Cissé wax na ñu ngi lay jaale ci lu ñu bokk euh, di ñaan yàlla aussi xolu muñ bi mu la may mu wesaalewu ci ñëpp rek ci barke ti bi léegi bi may ñëw ci yoon bi imam da wax il faut beaucoup de courage euh, ma wax na ne projet politique bi ñu yëkkati aussi te di ci def lu am solo jamono ji parce que mm. nous avons toutes nos équipes à l'intérieur du pays mm. ñu def liggéey bu mm. am ama am solo ñi ngi koy def sans tom tambour ni trompette beneen bi nous avons choisi de fair un travail en underground bañ ci di communiquer mais Abdourahmane mi nga xamante ni mooy superviser travail bi c'est l'occasion d'ailleurs seedeel la taxawaayam ci suñu wet ci ni mu encadré mbir mi ni mu ci taxawee ak générosité ak leneen loo xam ne moo ëmb générosité bi mooy la fidélité waaye la waa waxoon rek dañu ko dafa am xale bu saaga ci mbedd waa ji ne ci xale bi ñàkk na teggin waa ji ne non ndeyam la waa ji ne da xam yaay mu ne déedéet xawma ko mu ne euh, Cheikh euh, Imam Al Ghazali moo wax ne soowu ndey suñu ko jëlee ndey di nàmpal doom ay jikkoom la wan def ko liquide mu jox ko doom ji li ji mën yëpp da koy nag suñu ànd ak moom dañuy tëdd nelaw ndax ñett yi xew ci réew mi du ko dal moom benn bi mooy tas yaakaar du ko dal beneen bi mooy du ànd ak yow mukk ba gis lenn li xew ci réew mi mooy di ko lorñe ba pare bàyyi la yow mm-hmm. du ko def mukk ci àdduna ba ca des mooy lii mu la jox mm-hmm. ci kanamu nit ñi mm-hmm. moom la la ëmbalit soo leen wéetee wala moom su wéetee moo tax mu am solo ñu seddeel la ko ba ca des nag mooy seen olof jaay dafa ne seen wóorul moo tax ma jël temps yi xaw la expliquer tuuti ci projet bi ñu nekk wax naa Abdourahmane ma ne su ma amee un pour cent njort mm-hmm. ne insha allahu taala du ñu gagné deux mille vingt quatre mm-hmm. damay bàyyi mm-hmm. l'engagement que nous avons pris c'est d'aller à la rencontre des Sénégalais fu ñu mën a ne ci réew mi expliquer leen de manière très claire li ñu bëgg a def ci réew mi loolu c'est un grand projet révolutionnaire ci Afrique li ñu nar a def te ma bëgg insha allahu taala jokkoo bi ñu am tey ñu yaatalaat ko davantage ma expliquer la li ñu li def diggante TGV bi mm-hmm. euh, diggante la banque des femmes alors mm-hmm. Soxna May mm-hmm. où nous voulons injecter cent quatre-vingts milliards de francs fa ak euh, jaaree ko ci la Awqaf nga xam ko bu baax le WACF le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde toolu askan bi wala encore kër coach parce que bëgg nañu sénégalais bu ne jeune soo yeewatee au lieu ngay toog di grand place wala di tee nga xam fan nga mën a teg sa tànk pour am dara ci journée bi ñu ngi ci liggéey nag à travers les algorithmes de l'intelligence artificielle beneen bi imam on ne peut pas parler réew mu ubbeeku koom ba dox te waxuñu sécurité moo tax nous avons un projet innovant ci wàllu reconnaissance faciale ci nit su nit ñi tëddee ba kenn jóg guddi bëgg jël alalu jàmbur y a des caméras nouvelle technologie te du coûter dara état du Sénégal ci ni ñu ko tënkee pour que nit mën a dox quatre heures du matin ci mbedd turam tiitaange ko ko agressé mm. loolu ñu ngi ci di ñaan nag ci li nga féete yàlla daf ñu wax ñaari mbir yu am solo ci surat baqara mm-hmm. wa ida saalaka ibadi anni fa inni xaribun ujibu daawata fal yastajib wallahi wala yuaminu bi la allahum yarshudun ci boor bi nga féete mm-hmm. te ñu xam ne aussi li mu wax ci alquran leer na ci nguur qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tuhizzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika mm-hmm. ala kulli shay'in qadir li mu wax leer na li la ciy ñaan mooy lii nga féetewoo yow nga ñaanal ñu yàlla yàlla dimbali ñu muccal ñu d'abord ci li ñu yëkkati beneen bi imam j'ai une lourde responsabilité ci ñi ma màggandool fii ci HLM kenn ku ne am na yéene am na ay projet yu muy nelawee te bëgg naa parce que jël réew géej la Mm-hmm. il faut nga am générosité comprendre li nga yor sa loxo mm-hmm. ma am yéene bu rëy na ci HLM bii ñu nekk incha allah tam moo tax ma ne sa ñaan mm-hmm. dafay am solo bu baax ci lii nekk ngi lay sant di la gërëm alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min shaa fal yakfur wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw Abdourahman mi yàlla bu seen yaakaar tas ci moom yàlla dëgëral sa taxawaay musal la ci pexe police ak pexe gendarmerie ak solitaire ak pexe social ak tuuma ba yàlla àggale la foofu foogu la ci daraje sidina Muhammad صل على سجيرا حمدا فتح المغلق القديم والهدي الى صراط مستقيم حقا اللهم من كل ضيق مخرج ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا ولا كل خير سبيلا برحمتك يا خير البلد يا ربي انما امره اذا ارشد قل كن يا ربي سوني كن لك الفخر يا سامو لنغا نم يا لنغا نم Cheikh Alassane Sène Nour ya yaakaaram bam ci tos fa yekkoon